ne xam nga dund mooy loolu loolu. ah dund mooy loolu la bàyyi temps dëkk bi dafa dëgër de. affaire bi dund band dafa war a métti de. Eh, dund waaye laay fu band la a teg. yow keroog ni nga gansee ci gaan boobu noonu ko dafa war a métti. Eh, te gaan boobu dafa am doole xanaa gisoo ko dafa am doole. mais wan doole affaire bi affaire doole a am dara bàyyi. te balaa maa tëdd ci am na lu ma bëgg de bàyyi. man nañ kaa teg sa ay guddi si wala bàyyi léegi léegi nii sax ñu teg dara bàyyi am dara bàyyi yóbbaale dafa leer rek tabaski lañ jëm yaa ma gën a xam ah tabaski bàyyi am na benn xar bu ma gisoon gàlla bee sax mën nañ kaa jël dafa leer waaw tey balaa ñoo tëdd ci la ah waaw jaay dara sa baay wala teg dara yaa ma gën a xam ah. nag ay waay waay affaire am na benn paa buy ñëw nii de paa ma taru paa bi nga xam paa la de ma ñëw xoolal hmm. ceenel da coo jubal naka dal waaw yee da nga def nii koy sa morom mu bàyyi mu jal nga def nga sama morom baa nga yow sa morom mu bàyyi laa la ah, jugal fii nga naan sama morom bàyyi man nag fii yow la nga def ni yow lan la yow loo bëgg yow boobu ma ko la sat ci gat ba loo xew xara fi ak wax lala eh, eh? bul wax xal wax gars est-ce que xam nga fii li ñuy négocier xam nga fi nga eh, dugg nii eh taxawal nga ban nii yow lan la koy xam nga ban suq ah. nga dugg nii laa lay wax nii. ah ah. Eh, xam nga ban suq nga dugg. Eh, eh, taxawal nii taxawal li nga indi li nga war a taxawal taxawal fii taxawal taxawal nii eh. xarala bu ko koy. eh eh xam nga ban suq nga dugg nii laa lay wax nii. xarala bu ko koy. peewal booy mu gaaw a tudd. almal xanaa ngeen tuux sax bii man naa kaa tee bàyyi. sa bi tekki fi nga teg nii eh. baal baal baal eh. lan nga wut si ah? gàncax bii nii. waaw dara ngi de. aw lan nga bëgg koy. waaw yow ba sa xaalis bu dul loolu gis nga lii gis nga lii dama dem ba ba ba dimla am dimla am dimla am koy dimla am dimla am dimla am rek dimla am. pardon ma lay tàqale sa baat ak sa bopp. ba fi kaa ba fi kaa nga koy. Mamadou Mamadou Mamadou xam nga fi nga dugg nii laa wax ni dimla am koy. ba dimbali am. barke yàlla bi dimla am ay dund bu ñuy dund amul dimbali de. xoolal fi xati be ke da babil bàyyi ko bàyyi ko xool na kii bët ak bët am nim da am déedéet déedéet roog déedéet roog ay dugub bi amul fa déedéet roogum la déedéet roog déedéet roog dim la am dim la am ah, am na ko tay na bu tey boo la fi gisee tey dama lay ray dim la am xam nga lii xam nga lii anda ma keke kay anda ma keke jugal jugal mu gaaw dim la jugal mu gaaw dim la am chef dim la am rek imret imret imret chef tey waaye suñu journée bi daa mel ni dara la de tey moom teg nañ dara moom am baay ah gisoo gaa daa mel ni banque la jugee de kii paa bi jëlee loolu tegal yow. kon paa yi li leen def. ah baay ngaaxul lu ci aliyaa yi nii. te am na ñu ñu kosee sax. dund am man nii laa ko bëggee man bu ma farmee damaa bëgg nga doon baan. noonu la doon wara. waaw noonu laa koy bëggee. daaj. tey doo teg dara taabul. tey taabul bi. gis naa ngeen agressé benn paa indi la ban indil. xamal oh, nga mu daaw champion oh. maa ngi dem maa ngi ñëwaat waaw oh. xoolal lu ñu fàttale maa ngi ñëw en fait grand place waaw bul dof nag dégg nga journée bi nee la bàyyi. tool yi moom noonu laa ko bëggee. waaw affaire bi day metti daaj rek noonu laa ko bëggee. teg rek noonu la. aw lu ñu fiy yombal ñun aw lu ñuy seddal. genre paa yi damaa bëgg bu leen may dara. ah paa yi duñu leen may tos. tey guddimaa bi sax fii la ñuy taxaw tey. ban xar nga doon wax noonu sànq ci aliyaayu. ah benn koñ la nii rek côté yii. mooy wetu paa ñaangal paa boobu rek dañ ñaangal. ah paa bu ñaaw boobu rek mooy seen. waaw paa bu ñaaw boobu rek ah paa boobu la bàyyi koñ boobu. naan saa tabaski lañ jëm bul dof duñu maye dara. waay dara du sedd ren gii dara du sedd dara du sedd ren. amul lu ñuy dox man bëgguma ñu may jor booy xof yooyu di tapé de. dama bëgg affaire nay metti xolal. naaj waaw. dina xam li ma lay wax yow. xam naa ko xam naa li ngay wax bu baax yow. Eh, doom waaw ah, waaw ngeen def yow lan la yow. lan la lu xew loolu laa war laaj lan la. lan la lan la. lan la yow taxawal lu xewee. alors romb sama romb. aliyaa bi sama aliyaa la xamoo loolu sama aliyaa moo nekk nii. aliyaa ban. fi sama ruq la fi jaar. ruq bii ne ku ko yow. amul ruq bi. doom yi yéen di moo eh xëy lu suñu xëy loolu sa yoon nekk si duñu ko wax. Ah. yéen daal franchement yéen man eh nga taxaw père nga naan ma ay franchement. yow da ngaa réglé réew. ay yooyu loxo bi. lu ñu bëggoo réew ba bëgg a dee. dama na sama loxo waay. beneen yoon moom fekkante fii ci ruuk bi di nga xam. yaay yooyu sama loxo yi. affaire bi tey métti na de. or jaarati sax moom ni la jaar rek xam nii